min Mbàkke jaraway baari saxaaye wito baaray Moodu Lamin Moodu Lamin baara Moodu Lamin Mbàkke jaraway baari saxaaye wito baaray Moodu Lamin Moodu Lamin baara Moodu Lamin Mbàkke jaraway baari baari sa xaye to baray Modou Lamine Mamadou Lamine Bara jaraway baari sa xaye to baray Modou Lamine सहाय min bara bara kula way am dam bari sa kay way to yer waje je yer waje si abdul aziz bara jara way bari sa kay way to yer waje je yer waje si abdul aziz bara wote bari sa kay way to bara modulamin mamadulamin bara Mbàkke jarawañ baay sa xayri ko baaraay Moodu Lamin Mamadu Lamin baara baara ku la way am ndam baay sa xayri ko baaraay Moodu Lamin Mamadu Lamin baara Moodu Lamin Mbàkke jarawañ baay sa xayri nan tagg Ahmadu Lamin moom la mu may sirul ma soon xar baax la feese ba ni guun bàyyi baa ko lëm ci xarnu bi sëriñ Bara Baatin ba jaaxal na Kajoor moo tax ñu fal ko lëm biir boo ko gisee ma ngay ni kuy lu maat ci xarnu gi fajaaja moo ca gën a gaaw lu wax boroomam mu ni waaw day fal di fal du gaaw mat naa ragal ci xarnu bi day woy te jàng lu raaf taman na xaata du ca suuf moo man araat taman waroof jomal na mboolem xarnu bi sañ-sañ ba la dal na ci moom jagleem nga jiitu na juddoom mbër mu ko suuru daal di ruum meloom xajul ci xarnu bi yàlla nu ko may mbooti lamin fegal ko ayu bépp noon ku dégg ñaan gi neel amin ngir yàlla naatal xarnu bi doomi gaynde gaynde lay doon gar mi dafa soppi wàlliw Cheikh Abdoul Aziz Baara mooy sa baay gane Souleymane say géej la muy naan maam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ibnu Cheikh Abdoul Aziz Baara Baara Aminatolo mooy sa maam Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Abdoul Aziz Baara sa waay du ñeewaayu keneen sa waay du xàcc jëm feneen kenn du la gëndi gëm leneen Serigne Baara mooy sa maam ñu ñaan lu taxaw ñaan yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp yooyu yëpp